ginnaaw bi ñu nuyoo madame le ministre euh, mais dañ koy remercier surtout ci démarche bi nga xam ni am na ko pour ñëw euh, fekk ci acteurs territoriaux yi pour indil leen loi bi nga xam ni euh, loi nationale la ak décret d'application muy loi bu nga xam ni loi d'orientation économie sociale et solidaire alors lu tax ma ni nag damay rafetlu démarche bi mooy que non seulement indi na loi bi wax nañu lu nekk ci loi bi mais surtout wax nañu lu muy xaar euh, ci ñun ñi nga xam ni tey euh, ñoo fi toogal euh, état bi ci région yi ci gox yi alors ñu déglu bu baax li nga xam ni wax nañu ko ci propos liminaire am mais surtout suivre contenu communication yi nga xam ni effectivement ces services techniques présenté nañ ko à l'ensemble des acteurs territoriaux may wax ni kon ñun Euh, comprendre nañu li nga xam ni moom mooy loi bi xam nañu suñu rôle ci loi bi mais surtout euh, dañu joxe engagement pour que lépp lu nga xam ni rôle bu ñu war a jouer la ci wàllu encadrer ñi nga xam ni ñoo nekk à la base euh, jàppale leen mais surtout assurer la suivi de li nga xam ne mooy dugg tey ci plateforme bi incha allah dinañ ko def ni mu waree à la grande satisfaction de madame la ministre pour que politique économie sociale et solidaire bi nga xam ne ko dénk mu doon un succès éclatant fii ci région bu Dakar. donc ci tënk li ñu fi dajale tey moo doon ci wàllu fësal ak euh, waajal tàmbali bi nga xam ne mooy opérationnaliser loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire pàcc bu am solo boo xam ne pour loi bi dox. foog ñoom ñu dugal ci seen loxo ndax ñi nga xam ne ñooy déposer seen dossier ñoom ñooy xool ndax li yoon wax yépp ci loolu mat na mais surtout ñu seet ndax lañu wax aussi méngoo na dëppoon na ak li am mooy administration territorial maanaam gouverneur yi préfet yi sous préfet kon tey waxtaan nañu ak ñoom ci CRD bi mu nekkoon waxtaan bu am solo ndax euh, lii ñu bëgg def te président Macky Sall jagleel ko acteur économie sociale et solidaire yi ci wàllu euh, taxawaay ci wàllu koom ci wàllu taxawaayu état ci gën a mën a jege soxlaas yitte askan wi buñ ko doon natt ci téeméer tey daanaka dañ naan fukk ak euh, juróom-ñaar fukk ak juróom yi def nañ ndax juróom fukki yi moo doon ñu am cadre réglementaire maanaam mu am loi yoo xam ne tënk na li ñu bëgg def loolu président def na ko ba signer décret d'application li ci des mooy ñi war a intervenir ci liggéey bi ñu xam ko xam lan moo ci war lan lañ ci war a def am nañ ko tey kon beneen fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom bi mooy ñu wàcc ci terrain bi jébbal ko askan wi loolu aussi euh, dinañ ci def suñu kem kàttan boo gisee ñu ne ci wàll boobu buñ koy def dañuy tàmbalee dakaar ak Thiès ndax dañ ci liggéey ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc muy waa ANSD ñoom ñu wan ñu ci études yu ñu def ne ñi ëpp ci acteur économie sociale et solidaire yi ñu ngi diggante Dakar ak Thiès moo tax ñu tàmbalee Dakar mais euh, CRD bi ñu ngi ciy sant gouverneur ak député yi ak mboolem maire yi fi nekk président conseil départemental ak maire ville yi ndax ñun ñëpp ñoo war a séq liggéey boobu nga xam ne bu muccee ayib am na difficulté yu bari yu ñuy gis euh, ci wàllu activité économique u bénéficiaires yi te plateforme bi seen label bi dina ci mën a ñëw ndax lépp day jaar ci agrément bi boo gisee nee nañ financement yi léegi ministère bi mën na bañ tëb tëb rek di ko joxe waaye mën na acteurs yi bu ñu jaaree ci plateforme bi ba téye seen agrément ñu xam ne dinañ am ndimbal loo xam ne dina méngoo ñoom ak li ñu soxla ak li ñu bëgg foog naa ne loolu vision bu am solo la bu ñu liggéey bu ñu président Macky sàll dénk la te dinañ ci taxaw ni mu waree ngir moom tamit lam ci namm mu mën ko ci am.